donc les les problèmes. merci les ondes positives. les ondes positives c'est important merci beaucoup. aywa léegi nag ñu jàll ci leneen. ñu ci mbënn moom taluñ ko la poti. dëgg dëgg la mbënn mi hmm. waaw mbënn mi ñu ngi leen di bu baax. Hmm. voilà mi ngi noonu jërëjëf. aywa un monde en mutation noonu nag la Abdoulaye tuddee jàngat bi mu jëm ci AS. Chérif day génn gaam CEDEAO France. yaa ngi yéex xalaat jërëjëf dem si yàlla fàttali ne li mu ko daan wax nit ko wax kenn wax ak moom Chérif day bàyyi ba nga tàmbali mu sóobu a wax dëgg dama wax dëgg kat am na ay répliques yoo xam ne moom bu la ko joxee doo mën a répliquer Chérif bu la sànnee da ngay wéyal rek ba ci ci ndox nga naan clapoti nan dem ci njàngat bi ayca bisimilah waaw Ablaye clapoti yi de ku mu ku mu caressé doo golden boy bu soobee yàlla ayca ñu ñëw ci CIS CEDEAO Chérif France Europe USA euh, muy un monde en mutation loolu mooy jàngatu Abdoulaye Cissé tey bile. waaw waaw ci surtout ci njiit yi lay nemmeeku nañ ko muy ci Afrique gis nañ ko ci France barki démb gars yi tiitoon nañ sax jàpp ni euh, ñii di l' extrême droite xaw tuddi kon ñu gagné mujj ñoo gagné gis nga Trump it mu ngay fëgg buntu. Maison Blanche fële ci Amérique mais bu ñëwee fii ci AES muy alliance euh, état alliance Sahel bi nga xamante ni ay réew ñoo ci nekk muy Mali Burkina Faso ak ñi nga xamante ni tamit ñoom ñooy waa Niger. ay militaires ñoom ñoo leen jiite ñu ngay ci yoonu ñoom it génn ci CEDEAO bi nga xamante ni quinze mi ngi mi ngi fi ëmboon fi daanaka fukki réew ak juróom yi nekk ci Afrique sowu jant bu ñu ñëwee dafa mel ci wàllu histoire du négulet lii di am. waaw y a deux façons de voir les mm-hmm. nga xam ne ni moo xew ci ay état yu moom seen bopp am seen souveraineté décider ni dañuy génn ci organisation sous-régionale bi di CEDEAO mm-hmm. la façon positive de voir les choses c'est de se dire que cette entité là bi nga xam ne moo dox diggante Burkina Mali ak mmh. Niger c'est une entité historique qui a toujours existé qui a existé vraiment dans l'histoire mmh. et qu'on appelle le Liptako Gourma mais soo bëggee jàppee ne historiquement dafa exister li tax muy simple yi da jàpp ne tey peut-être par nostalgie, on aurait pu faire naître euh, la fédération du Soudan par exemple nga xam ne boo ko documenté ci histoire Sénégal Mali nekkoon nañu benn hmm. ou plus récemment nga ne bon on a fait renaître la Sénégambie mm -hmm. c'est pas plus différent que ça en réalité parce que c'est une entité ñetti pays qui a existé dans l'histoire qui ont cheminé ensemble de tout le temps qui partagent trois cent soixante dix mille kilomètres carrés. Mhm. mais entité la boo xam ne géographiquement dañoo mës a ànd. évidemment mhm. ça c'est la façon joyeuse peut-être de voir les choses. pour dédramatiser. mais da nga jàpp ne ci àdduna bi fi ñu toll nii tey quand leur l'heure est aux grands ensembles ce n'est pas pour rien que bu yàggul rek gis nga ko euh, marché d'intérêt commun yi ZLECAf bi nga xam ne moo réunir Afrique yëpp ñuy dem ci ensemble yu mag yooyu finalement ñuy gis ay rocceeku ci organisation sous-régionale ci pays yoo xam ne am nañu fragilité yoo xamante ni xëy na àndoon ak ensemble bi moo gën a yomb même si am na ay problème personne na nii les problèmes yi nga xam ne moo am si CEDEAO kenn ba ci chef d'État yi ci seen bopp mais historiquement suñuy dellu siwaat ci li nga xam ne nii moom moo xew da ngay gis ni euh, some bi nga xam ne moom moo ko consacré mu ngi am le 6 samedi. CEDEAO di daje le 7. dimanche donc dafa mel ni ñoom waaxu nañu CEDEAO évidemment forcément on on on est obligé de lier les deux événements peut-être ñoom bëgg nañu waaxu sommet wu CEDEAO bi. parce que ça se la veille quand même sommet wu CEDEAO historiquement nag dafa am historique parce que depuis coup d'état yi nga xam ne am na ci ñetti réew yooyu bàyyi militaire yor ko je pense que décision bi nga xamante ni moo jëmmal juddu AES alliance des états du Sahel septembre 2023 la bi nga xam ne def nañ seen charte de l'entraide mm-hmm. li ko jiital mooy entraide militaire la mm-hmm. parce que ñoom ñett li ñu bokkee mooy peut-être pénétration organisation terroriste yi te mosuñu cee am pexe un ci jàppale CEDEAO musuñ cee am pexe deux ci li ñu bokkee ñoom ñett ñëpp ni amee li ñu bokkee ñoom ñett ñëpp mooy ci jàppale France te gisuñu ci avancement ci ni nga xam ne nii noonu la ñu koy waxee et c'est la réalité des faits aussi parce que la menace a été de plus en plus présente ci ñetti pays yooyu en dépit des efforts de la communauté internationale communauté sous-régionale bu CEDEAO en dépit des efforts aussi de la puissance coloniale muy bu France donc loolu bokk na ci li gën a pousse ñetti chefs d'État yi nga xam ne ils sont arrivés quand même après un coup d'État mm-hmm. muy mm -hmm. général Tchiani di colonel Assimi Goïta bu Mali ak mm-hmm. capitaine Ibrahima Traoré li leen boole mooy ay njiiti réew lañ tey mm-hmm. bokkuñ sax galon général colonel ak capitaine. mais terewul ñoom ñoo jiite seeni réew tey ba egg fi nga xam ne nii mooy ak acté génn CEDEAO. conséquences yi nag. parce que évidemment. Euh, génn génn génn CEDEAO. oui ban njeexital la waram parce que gis nañu sax waa CEDEAO commencé ñoom tamit def benn réplique ni comme génn ngeen fi. créé ngeen seen mbir bopp ku ci duggate ci espace CEDEAO sax da am visa. <laughs> boo jógee ci réew Malick xam nga. évidemment au niveau des c'est pas encore acté quoi yéen la maanaam ah, day wax conséquence dana buñ génnee lii moo leen ci mu mel ni que fi mu nekk nii euh, liy xeeñ neexul mais Malick xam nga xaw ma ndax njiit yi ñu ngi xool peuple yi nan la ñuy réagir mais évidemment les conséquences yu ñuy entrevoir amoon loo xam ne moom nga tàmmoon moom nga xam d'un mu nara dakk pas ci avantage kese ah. parce que ñoom li nga xam ne nii moo bëgg nañ ko def. Mm-hmm. am na avantage am na inconvénient. maintenant da ngay mm-hmm. xool fan fan moo ëppee mais évidemment conséquence yu njëkk yi yi war a am loolu la boo taxawalee entité fokk nga rëdd frontières yi. rëdd frontières yi aussi mooy boo koy bëgg génn am nay conséquences. forcement loolu dañ ciy dem soit dañuy négocier ak état yi nga xam ne ñoom la ñu frontalière bu fekkee ne bëgg a ñoo génn mu yomb ci ñoom wala bu fekkee ne état yooyu dañu bokk ci beneen organisation forcement dafay am li nga xam ne mooy visa ci diggante état yi te loolu xëy na conséquence bi gën a gàtt la bi nga xam ne nii mën naa am te loolu on n'imagine pas après avoir fait la CEDEAO mm. libre circulation des peuples et des biens ñu ñëwaat ci biir CEDEAO ci boppam am entité boo xamante ni dañuy différent ak moom donc vraiment peut-être que ci côté boobu aussi bien CEDEAO que confédération des états du Sahel parce que tey noonu la tudd moom la ñu acté le 6 juillet tuddee ko confédération des états du Sahel jóge sax ci alliance des états du Sahel muy AES bi peut-être que acté loolu ça va amener des négociation mais ci con ci conditions yi nga xam ne ni moom la ñu quitté. Ah. on voit mal négociation naka lay amee ci seen i diggante parce que euh, tàggatoo meroo la. Mm-hmm. parce que kenn umpalewul li nga xam ne moo fi nekkoon ci sanctions yi nga xam ne moom moo fi mm-hmm. nekkoon. Mm-hmm. ultimatum yi nga xam ne joxoon nañ ko régime yi. pour que mm. ñu defarwaat delloo nguur yi. wala ñu continuer euh, sanctions yi. te ñoom ultimatum yi ñu leen joxoon yëpp. xëtt nañu ko sans organiser élection yor seen agenda wu bopp donc jógewu mer la boo xam ne nii peut-être mën naa difficile pour rapprocher encore les deux entités mais la CEDEAO la le rôle lan la ci war a def voilà. CEDEA yabal nañ le président Diomaye ak Gnassingbé ngir ñu jéem a xëy na waxtaan ak na yi. <laughs> alors ñoom mënuñu wax ni mënuñoo wax ni affaire bi daf leen a berte. Mhm. mais xëy na la décision radicale quand même. de consacrer la rupture. avec la CEDEAO dina leen berte parce que li ñuy mës a xalaat mooy bon entité bi xëy na dafa gën a dépendre économiquement aussi du reste de la CEDEAO donc peut-être du seen intérêt ñu demal seen bopp mais li tax mu difficile mooy décision yi CEDEAO doon jël évidemment ci à l'unanimité des cher de la dañ ci doon ànd donc day difficile sax tey chance bi mooy CEDEAO boobu nga xam ne moo nekkoon en contentieux ak pays yële tey dafa am don bu bees don bi ci bees mooy président bassiru Diomaye Faye cest à moo ciy chef d'état bu bees boo xam ne fekkewul période contentieux yi te ku ne xam na ni am na lu président bassiru Diomaye Faye incarné aussi ci renouveau boobu ci souveraineté boobu et puis des critiques ouvertes contre cette CEDEAO des chefs d'État ah te defe naa ni réitéré na ko ci seen kanam parce que chef d'État yi daan nañu daan nañu constate ni CEDEAO am na problème mais li tax ñu daan wax syndicat chef d'État la ñoom seen boobu daawuñ daawuñ critique organisation bi mm-hmm. mais tey boo amee chef d'État buy taxaw bu sañ a wax ni ala kulli xalin foog ñu xoolaat suñu organisation bi ni muy doxee pour que ñu bañ a déconnecté wu de nos peuples parce que c'est ça son discours le président Bassirou Diomaye fay donc chance bi dese CEDEAO mooy évidemment de le mandater mais ça va pas être facile ah pour lui parce que pays yi ñoom ku ñu yóbbaale sax moom la ñu gën a bëgg te xëy na yóbbaale bi aussi yaakaaroon nañu ko ci profilu dirigeant yi ñu am fii Sénégal par exemple mm-hmm. parce que évidemment yaakaar nañ ni tey Sénégal la ñu gën a jege que CEDEAO mmh. mais je pense que décision wu Sénégal en tant que état souverain mënu la dem ci rek xaritoo naa xam nga li ñuy wax xame kenn du ko nangu. Mhm. mun naa tax nga xam nit. waaye soo xuloog moom du tax ma nit ma war xuloog moom. c'est ça lu Sénégal xaritoo ci profilu dirigeant yi laay wax. parce que mhm. xam nañu ko entre Ousmane Sonko et ses autres chefs d'État là. Mhm. peut-être le courant passe mieux. entre moom ak ñii. que entre moom ak yeneen chef d'état yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon en place mais loolu du conditionner warula conditionne relation wu Sénégal ak entité sous-régional bii di CEDEAO ne dirigeant bi moom a gënal rek donc damay féete foofu non avenir u état intérêt u état dafa dépassé mhm. neexoo entre ñaari nit ba war a mën a déterminer mhm. positionnement bi nga xam ne moom la ñuy am mais désignation bu euh, président Bassirou Diomaye Faye jur na coow également euh, ci réew mi ndax démb ñu ngi gis El Hadj Malick Maodo Malick mu àddu ci wàllu ñu bëri nee nañ ne dafa teel ci ki nga xam ne moom moo di euh, président Bassirou Diomaye Faye da ngay dàq lu ni mel wala da koy dëggal. non teel mënul teel parce que euh, chef d'état la chef d'état amul yaa fi njëkk yaa fi mujj. opportunité la. évidemment dañuy xool ki nga xamante ni moom moo war a mën a gën a wax ak ñaari parti yi en général loolu mooy déterminer statut médiateur ak réew mi aussi n'importe quel pays ci wàllu diplomatie Sénégal aussi je pense que c'est pas là c'est pas le hmm. président Bassirou Diomaye fay mais dafa am jaar-jaar hmm. Sénégal dafa am jaar-jaar am taxawaay boo xam ne mooy continuer ba léegi hmm. et puis mosoo gis médiation boo xam ne dañuy yónni koo xamante ne ni yaakaar nañu ni mais est-ce que mën nga est-ce que mën nga def médiation par exemple dans les grands lacs. Euh, rappelez-vous par exemple bi nga xam ne Union africaine je donne un très concret Union africaine bi mu war a def médiation en République démocratique du Congo désigné qui président du Rwanda. Mmh. Euh, mais <laughs> s'il est un poids lourd de la diplomatie en Afrique. Mmh. c'est pas Paul Kagame quand même. Mmh. qui va faire une médiation. démocratique wala sur le processus électoral en République démocratique du Congo donc aajuwul ci loolu médiation ki koy def mooy ki nga xam ne statuem may na ko mu wax mm, ak ñaari parti yëpp Gnassingbé bi aussi il est très influent dans la sous-région surtout diplomatie togolaise bi oui cas yu bëri ñoo ko fi rek parce que moom aussi ni mu taxawale et finalement dafa xaw a légitimer sax processus bi nga xam ne Togo engagé wu na tey ci processus démocratique et mhm. il est vrai mhm. def nañu benn réforme constitutionnelle def nañ ko mais bi ñu ko defee euh, ba pare kii na pour tënku ci te defe naa ni bi mu koy def aussi référendum la ko posé peuple bi peuple bi peuple bi peuple bi ànd ceeg moom mhm. même si mën nañ ko jàppee tripatouillage mais lu mu teg la lu leer wax ni réforme yi nii lañ koy defee te bu ñu ko defee mandat xam nga li posé problème mooy def réforme ñu ne mandat bëre ci la bokkam déet mais moom dafa teg leer ne mandat yi passé bokku ci nañu def mm-hmm. référendum dóor dàqi nag léegi ci kanam. Mm-hmm. ñu dem référendum loolu légitimé na ko ak mm-hmm. poids diplomatique bi nga xam ne nii am na ko donc vraiment kii médiateur mooy ki nga xam ne statut may na ko ko ci mu mën a wax ak ñaari parti parce que médiation nga yónni koo xamante nii ñee dañ la kii moom soxlawul sax muy ñëw ndax fumiste la wala naafeq la wala leneen wala moom moo ñu dugal sa situation bi ne loolu mënul nekk et je pense que le Sénégal mm. doit jouer ce rôle là profondément te loolu moo loolu sax mooy ci juste milieu quoi voilà am na réew mooy boo xoolee carte carte bi ñu fi wane sànq bi laa muy réew yoo xamante ni daanaka ubbeekoo woon ci géej ah Euh, tëju googu aussi est-ce que dina nekk ci loo xamante ni arrangé na leen parce que wala am réew yoo xam ne bokkuñ CEDEAO sax. Mm. ñoom it parce que li naan état yi aussi seen intérêt la yor gis na li xew Tchad. ci mbiram pipeline bi diggante justement ki nga xamante ni mooy Niger. Mm. ak Bénin finalement dañ ne ci Tchadien bi moo leen di moo leen di jàppale est-ce que waa CEDEAO buñ sàgganee aussi fii aussi gis nañ économiquement port Dakar ak Mali buñ sàgganee duñ dem ci yeneen réew ñëw suufu leen. Chérif je pense que tu veux même prolonger les géographique des ce qu'on appelle cette confédération des États du Sahel parce que ku ne xam na ni bu ci beneen pays waree topp Guinée lay doon voilà bu ci beneen pays peut-être sax tey dinañu étonné lu dax Guinée bokk ci parce que ñoo bokk profil bokk statut c'est les régimes militaires yi nga xam ne ils sont arrivés au pouvoir donc bu ci beneen pays waree topp Guinée lay doon te ñetti état yi ñu ngi def lu ñu mën pour Guinée aussi topp leen et ça leur donnera cette ouverture sur l'océan je pense que ça enjeu stratégique boobu déjà enjeu bu mag a mag la ci ñoom et heureusement pour ñoom aussi am na ci pays boo xam ne comme le Mali par exemple dafa am ouverture boo xam ne. am na ko ci lu dul CEDEAO. parce que bu fekkoon ni sa ouverture yëpp. dafa nekk ci ay pays CEDEAO waaye des pays amis peut-être dina difficile trop. comme comme Mauritanie on le voit Mauritanie Algérie. Hmm. voilà mais xam nga xam nga xam nga ci CEDEAO bi nga xam ne nii foofu lay bokk. sa hmm. va difficile nga am ci ouverture eh donc loolu moo tax comme am nañu ouverture extérieure bu hmm. Mali ce grand territoire avec. l'Algérie je pense que pour ñoom. seen une très très bonne chose que mu mm-hmm. demee noonu mm-hmm. mais encore une fois mm-hmm. décision wu génn dans une entité li tax li tax ñu war si taxaw mooy dafa war a weesu bëgg-bëgg benn nit gis nga c'est pas parce que njiit nga à un instant T nga war a mën a engager l'avenir d'une nation ci loo xam ne peut-être bu jëmmi chef d'état bi changé. Mhm. ñu mën ko remettre en cause. décision autodétermination Fatick. Mhm. dafa waroon a egg ci poser problème yi carrément dans un référendum. Ouais. c'est-à-dire peuple mhm. wu. parce que dans d'autres entités. je pense que noonu la ñu koy defee. décision wu des wala génn ci CEDEAO ak pays bu mën di doon muy Sénégal muy beneen. warul woon a nekk décision wu. président du moment ñu poser ko. mu doon problème d'autodétermination peuple yi mm-hmm. décidé mm-hmm. parce que quand même mm-hmm. ba fa muy mujj mais yemul ci jëmmi capitaine Ibrahima Traoré wala yemul ci jëmmi général Tchiani régime day traversé alors que lii avenir u surtout que ñoom amul benn légitimité sax ndax demoon élection ban fal leen waaw non dama c'est exactement ça c'est-à-dire mënoon na jaar ci processus légitimation et autodétermination nga xam ne peuple yi mhm. ñooy décider parce que tey lu CEDEAO métti métti métti mhm. yi gëm naa ni am na ñoo xam ne mhm. nes des ci biir CEDEAO mooy li nga xam ne moo gën ci ñoom maintenant ça ne permet pas de terre problème yi nga xam ne moo indi lii yëpp c'est-à-dire le problème du terrorisme les problèmes a sécurité mais mënoon nañ ko waxtaanee neneen lu dul jërëjëf fëx génn dem seen yoon incha allah merci beaucoup Abdoulaye Cissé euh, ci jàngat bi suñu invité yegg soxna Anta Jaxate Ndaw ñu lay nuyu Anta maa lay fay soxna Fatou mhm. euh, di nuyu Chérif mhm. xam naa ne sonal na leen trop. waaye ñëpp la fàtte ah, Chérif sonal na leen lool waaye yéen tamit mi ngi noonu. Ah, yooyu nga de ah dee leen ko kii tuuti dee leen ko baax a ah, na yow moom boo xasee sànni sa lance. waaw balaa ngay defar la réplique day day day xaw mi. dégg nga lim la wax moo tax faamu attaqué na la gan gu yeewi béy nga. moo tax ma ko noonu. <laughs> donc maa ngi bu baax moom di ko remercier. ci euh, invitation bi. jërëjëf di la nuyu bu baax yow aussi très bien. di nuyu El Hadj mhm. di kontaan bu baax ci bokk ak yow plateau bi. sama doom yi dañ may faral di tooñ souvent. Mhm. boo daan wax euh, nu mu tuddati. que mhm. képp koo xam te ne sa xel xel dafa jege bu seetaan làmb ji. wala jëlal suukar. sama doom bu ndaw bi damay wax yaay. paa bi wax na de. l'adrénaline monte. dama <laughs> <laughs> jël suukar. <laughs> yaay grand Malick ndeysaan heure boo génnee rek ñu ne ma ah yaay borom lamb jaay nga noonu ngi yi nuyu bokk ak macha allah merci également di nuyu Abdoulaye jërëjëf borom jàngat bi mhm. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax jërëjëf profité di nuyu mhm. sama collègue agent municipaux yëpp très nga xam ne tey ñoom laa porté seen voix ñu fii très bien aywa jërëjëf une page euh, ñu dugal jingle bi léegi léegi daal di soobu ci waxtaan bi ak suñu gan